ñoo ngi leen di siyaar sunu siyaar ak sunu wàccuwaay ñu ciy jiital xalifatul am li tariqatil muridiya sëriñ Muntaqa Mbakke moom sëriñ Basiru di ñaan mu yàgg fi Mbakke tànd ak mbooloo mi mbokki taalibe yi noo ngi fii ci njaareem dëkkub Cheikhul Khadim tey jii nga xam ne mooy benn fan ci safar weer wi nga xam ne Cheikhul Khadim Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba moo waxoon ne bu dikkatee nañu ko ci sant la yàlla ndax mbooleem lu mu musaan a liggéeyal yàlla fay na ko ko ci weer wi xam ngeen ne saa yoo xamee ne weer wi teroon na sofinatul amaan gone njaareem daanu takk aw say ànd ak njaareem gépp wër njaareem dox sant cheikhul xaddiim ci gox yëpp wër ko fii may waxee ak yéen ñi ngi toll kër Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine waaye nag maa ngi taxaloo ak monsieur le maire honorable député Malick Fall mi nga xam ne mooy maire Diourbel monsieur le maire ñu gis la tey waaye gis njabootu Cheikhul Khadim gi ci sawet wet ñu ngi nii ah Serigne Abdoul Ahad Mbacké ngi nii feggoog yow waaye nag nga feggoo ak DG Moustapha Guèye directeur course bu Thiès yéen ñëpp ngeen di ay doomi njaareem tey ngeen ànd ak mbooloo mi macha allahu di liggéey liggéey bu am solo tey monsieur le tey loo wax ci bis bi. waaw ah, luñ ciy rafet euh, sant ñëpp sant euh, suñu sang yu baax yi sant DG sant leen waa presse nga xam tey ji a mm-hmm. sant waa njaareem yëpp aussi. ñi nga xam ne bis bi nga xam ne tey jii mm-hmm. amuñu lu dul moom. Mm-hmm. mooy sëñ Tuubaa te mënu ko mënuñu koo fay war koo mën a sant. kon damay wax ne tey ji man maire Sénégal yëpp maire Ndiarème moo ci gën maa ngi sant yàlla bu baax sant sëñ Tuubaa bu ma defee meeru Ndiarème mais boo xoolee DG mën a koo jaalu taalibe yi mais boo xoolee maire député mën a koo jaal ndax ñun ay ay taalibe képp fi nekk taalibe rek mu am solo kon di sant waa Ndiarème ni ñu génnee tey xam ne tey jii bis bi fi mu njëkkee defee fi mu njëkkee sant loo bisam bi ci Ndiarème ji la ko defee kon tey ji bis boobee ñëwee kenn ku nekk si ñun sol mbubu taalibe ànd ak ñun di ko sant di ko sant la ci bisam boobu kon waa Njaaréem en tant que maire dëkk bi premier magistrat ma génn ànd ak sang yu baax yëpp sa baax di ko sant di sant waa Njaaréem yëpp nga xam ne bis bii nag ñun ñoo ko moom kenn moomu ko dañ ko fonk dañ ko teel dañ bopp ñoŋal ko def ko ba nga xam ne tey jii kenn ku ci nekk la ma waroon a def ci yoonu mu ñun nañ ko ci gën a ëppale ndax fii la mbir mi commencé kon bu commencé fii tey mu doore ko fii tey kon tey lii bu amee waa Njaaréem yëpp génn sant sëñ bi kon loola dina ci kontaan di ñaan yàlla bis bi yàlla na ko sunu borom defal ëllëg ñu ñëpp di teew fi lépp luñ ci sonn si biir sëñ bi tax yàlla na ko borom defal fay amiin amiin amiin jërëjëf monsieur le maire junjum yaa ngi noonu di rëkk mim réew Bamba ko moom